ok voilà tey nag ñu taxaw ñu ñu taxaw ki ki nga xam ne mooy. nga bañ. ok d' accord Malick Mo nuyu naa la. foofu ah, hmm, hmm. question pour yow est que pare nga pour waaw waaw. ah voilà Malick Sénégal yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a waaw da ngeen a. man tane. changer liggéey nga bañ. maanaam seen xel nekkuñ da ngeen a. fu waay di. voilà da ngeen waa yéen. kenn jox leen euh, respect bi nga xam ne ni moom moom ngeen moom léegi yow yow en tant que yow ñi nga xam ne yow yow da ngaa bokk si ñi nga xam ne waaye dañoo waay di yow yow loolu yow loo ci mën a wax loo ci mën a wax. kon bi euh, dinaa si tontu après quoi waaye ma bëgg a laaj benn affaire pare yéen ñi nga xamante ni da ngeen a dër. wala ni wax da ngeen ni mbap mbap mbap mbap machine mel ni machine bu ñuy taal. est-ce que jamono tax gars yi joxuñu leen seen àq ak seen yelleef. eh xoolal dafa dinañ jàppale dama la posé question da da nga ma si répondre boo ma si mën répondre ñun bu bu ñu si. ah yéen ñu dër laay laaj tey en fait ba mu tontu ma ma tontu la ñu ñu waaye dañu tontu la. non non non. Ah, ku ku ku ku ku coupé. <laughs> Oh, oh, oh, kay voilà tout tey nag maa ngi fii bi biir RDV ñëw nag fees fii benn star plan mantane changé liggéey nga bañ ab dombaay naa kay muy Idrissa Koloma Dieng daana ko Toumoulenko plaisante sax mais Idrissa nuyu naa la. waaw laa be. la la lan moo lay mas. est-ce que man ama ama ama ama toog ci courant. looy. gis nga lii laa doon bañ. yow yow yow yow yow mënoo wax man ah bi sama ndey eh eh li ma eh eh eh eh man tamit noonu eh kalo, eh kalo man sama tër bi ma am pleur te tu am feeling gigi, lama ma tax yeen ñu ngi dër eh, eh. waxuñu mm, eh, eh, la de ñu ñu ngi def eh. kuy kuy. kuy sànq sa bopp moom. da ngay da ngay da ngay set. dawal katuuf. tas nga ñu ñun fekkee da nga ñuy ruwee ñu am nañ suñu valeur te te xam nañ suñu bopp fekkee nag da ngeen ñu ruwee ñu ñu dër dër yéen seen dër safewul amul Tava. Tá. On Benny. Tava. Ey. Oh, oh, oh. Open. Liegen. Não vou copiar. É que ele quer assim, óbvio. Mano. Ina da ta la mi yow manang yow ngay mi dem kutu da ta ku ku ku ku ku coupé à tur bi. Rasoul. ok. Rasoul. mantane. changer liggéey nga bañ. d'accord am naa la poser question. xaaral xaaral tuuti allo. oui Abdou waa livreur bi jox na la gaa ok léegi yow boo àggee xombol benn bi sama yaay nga ma koy joxal kii ko moom dina ko jël si léegi bi ci des Saint-Louis la jëm nga def le tout pour euh, nga joxal ma ko oto Saint-Louis yi bala ngaa dem dégg nga ok vas-y. waaw ah, vas-y respect. parce que man nan laa lay nga war ma répondre. lu lu lu soxna si nga ko gaal mi ndax yow da ngay deuxièmement man danga maa fekk sama liggéey ma bàyyi lépp taxaw fi wax ak yow eh, damay mhm. eh, ah fier fier voilà eh coupé woo eh xam nga lan laa lay gëm man du ma sa morom sama yitte gis ay commande laa ñu dem maa ngi taxaw di la déglu waxal te dama yàkkal ci ok ah, ah, euh, dañoo gis ni euh, Ngagne Demba Touré. voilà ah daa nekkoon su tuum. mandat de waa xaar xaar allo waa Abdou Ka da Mantane. nga la. Mantane. jox nga sama yaay gaam bi ba pare yow yaa ngi xombal nii. sérieux yaa ngi xombal. Wajar aja, merci beaucoup oke Dakar ba hombor ngay ta arrêté wu momo moomo nuy naa la ngi lay fay sonna di ku nek tay di di di di di mantane changer liguey nga isu mo dom bay may may may voilà merci beaucoup tey ku ku nekk tey mu laaj mu ngi laaj léegi kon vu que yow yow am ah, gis nañ yow yàq Wally Seck am ngeen benn ra ra. liggéey nga bañ. ok ok d' accord gaaw daal. non non moom xoolal man damay posé question da nga am si temps nga déglu ma wax boo am si temps nga ne ah, amoo amoo temps bi nga yow nga nga nga avancé. voilà léegi nag question bi ñu laaj mooy. Wally Seck. voilà mooy Wally Seck li li li bàyyi waay day bàyyi waay léegi en tant que ni yow yow xa xa moom li mën a wax dañu mën a wax si si si loolu. ci ndax waal day bàyyi waay bàyyi waay. voilà yow kon yow ma yow ma li ma fi wax yëpp yow ku ku comprendre ah, ku ku ku. duñ ko péré. bilaay duñ ko péré di nga ma laaj de. coupé moom duñ ko def yow commencé laaj ma lay toog nga mu ngay énervé pour lan nga énervé. mais mais Momo da da la laaj ba xamoo. Wally Seck da da ay way wala. mais yow laa bëgg nga wax ko. ay ku ku ku du ñu coupé de. ay ku ku coupé. du ñu coupé. Wally may laaj damay tontu. mais man mais yow laa bëgg nga laaj. mais man maa ngi wax mais man li li may wax day. day càng waaw. waxal mais yow ku comprendre nga li ma wax kay yow kay avancé. comprendre ma li nga wax. laajal Wally Seck sëy na da ngay gaaw nag quoi parce que bi seexul xadim quatorze heures li toon ku lay toon nii de nii nii naa la maa ngi lay fay a baax. Ah, d' accord boobu ba tey maa ngi taxaw fi sax doon la xaar. changer liggéey nga bañ. voilà doon doon la doon la xaar mën la question. waaw am benn problème de. ah d' accord ah ji ji jàngoo tey mën nañu wax tey xam nañu la international te ku wax tey ji ji jàngoo wax tey wu cinéma yaa ngi comprendre léegi tey nag da ngeen gis benn maison de production bu turu Even Even Prod dañoo génnee benn euh, série boo xam ne mu ngi turu pété pété mais da gis ni ah pété pété est nit ñaa koy critiquer ba nga parce que ñoom comprendre nañu personnage ak personne léegi nag yow loolu en tant que yow acteur

mo dag sama yon ba pare ne do poser question da mo poser question par force. wa mais mais dama en tant que yow acteur cinéma. wa koy waaw yo no jangate lol lol non déjà yo ya amul wo ben respect ci nit ndax yow ya munoo and ak fièvre bo xamante ni insoignable eh, la tuddu un. Hmm deuxièmement nga taxaw ko xamné ni léppam dafa normal nga bëgg taxaw fi dima ma waxloo za je peux pas. ah la je te respecte beaucoup mais du permettre ma la nga même manque de respect bi eh coupe lan coupé man may wax coupé mais yow do wax coupé parce que su coupé rek day jël temps coupé. mantane ne. changé liggéey nga bañ.